asalaamaaleykum mbokki internet yi di la nuyu bu baax yéen ñuy suivre sur lutte sénégalaise ak Kewel Info kon ah. ni ñu koy defee à chaque fois di nuyu kilifa diine yeeg kilifa aada yëpp di nuyu suma sëriñ notre responsable moral bu daaytu Moustarchidine wala Moustarchidaat di nuyu kilifa diine yëpp actualité oblige moo tax tey ñu ñëw fii déplacé wu ci géejawaay ñëw seet si ki nga xamante ni moom mooy guy gi gannaaw nag ba magam xaritam dafee open press te gis ngeen journaux yëpp guy gi la gars yi titré guy gi Balla Gaye am komba mu mel ni comme moom moo am komba xaw ma nag lan moo tax ñu waxtaan ak moom ñu bàyyi ko mu nuyoo ndax combat bi xam naa moom dafa mel daa yóbbu seen yoon yi. <laughs> d'abord dañuy sant yàlla Fatma. xanaa da ngay bañ sama sama ménage sa bees bi sa patron dàq la moo tax nga ni waa Kelle Info doo ci boolee kii. si si waaw waaw yaa di di di di sant yàlla julli jërë sant sama ñaar waajur. maa ngi nuyu waa ba Seck bu baax. nuyu suma grand frère Modou nuyu suma papa ak suma yaay suma famille maa ngi nuyu sama yaay Waré Sarr daay nuyu suma grand frère Nas kër gi yëpp ñoom caama mbaya bàyyiwuma kenn fu nekk famille Waré Sarr rek maa ngi bu baax maa ngi nuyu suma waa koñ mel ni maam am bolo Pam Ndoy suma rak suma rakk Babacar Moodu en même temps comme ni nga ko waxee maam am bàyyiwuma kenn daa ñu xam ne vraiment ñooy seetaan suma booy ñoom Paulo ñii seetaan site bi vraiment di am kontaan ci yow ak Thier mi nga àndal Fatma suma suma xa suma rakk suma xuloo waale ndax xam naa balaa émission bi jeex ñu xuloo. waaw yow suma nit nga suma rakk nga bëgg nga tegu ci yoon bi rek moo tax des fois ma lay sonal mais yow nit ku nuyu suma grand frère Lirou Diane ku baax ndeysaan gis nañ ni mu sonnee ci combat bi di nuyu Mour Ndiaye directeur ndeysaan mat leen ba ci États-Unis ku baax suma waaye la démb rek ñu ngi dégg ñu waxtaan lu yaatu loo xam ne vraiment lu may jëmee kanam la muy nit ku baax Mour Ndiaye directeur tey làmb koy wax rek na Mour Ndiaye directeur tax social yi muy def te du ko wane. te mi ngi def social yoo xam ne bu ma ko toogal fi di ko wax mun naa man mu mere ma mais ci bëri mi ngi feeñ mi am na yoo xam ne bëggul mu feeñ kon grand ñi ngi lay ñaanal baax loo mën ren déwén nga mën ko euh, di nuyu tamit sama sama coach boo ndax palaa A bi ñu doon wax. comme que bloqué nañ ko moom nee na ma plan B après naa la ci naa la ci wax tuuti. waaw sama coach boo wax na ma ko. di nuyu waa états yëpp Ndoye yàlla mbaa tous. waaw Abdou Medina Amital mama Debel Dame Yambu Ndiaye mama Mati wuñ kenn ñi nga xam ni vraiment ñuy bëggee guy di kontaan ci yow nag Fatma ak seet bi di la xaar 4 heures ñu wax tuuti rek actualité après. ñu mën a nekk ci la incha allah. mais tey tey dama gis ni journaux yi ñëpp dañoo xëy ah, gis guy gi titre guy gi mu mel ni yow boosu Balla Gaye bi jël nga ko mu mel ni yow yaay bëri. non Fatma fi ma fekk la rek sax. daf fekk ma tawat biñ may woo clinique la ma fekk presque bi may wax liiru mais xam naa ne bu ma demul euh, sam waay du firi parce que Balla Gaye nit ñi mën nañoo bañ a xam. mais Balla Gaye bu amoon sax problème mu naqar wala dara yàlla tere man su ma gisee bàyyi na loolu day reetaan nekk ak man ci yenn détail yàlla xam ne bi ñuy déggante quatre jours yi ñuy déggante. mais déggante bi ñuy déggante waxuma sax open press la ay làkk la ñuy waxante maa moom ci bi mu mel ne xale bu ndaw ma ne ko bis boo toogee ci koll booy ñaar jour boobu la ñuy gëj a waxati olof. mu commencé nga xam ni xam nga euh, kii am na man fu ma koy servi. am na fu may sentir kon bu open press jotee keneen. mun naa bañ a ñëw du feeñ. mais man bu ma ñëwul ci open presse Balla Gaye bu ñu xëyee ni ñu ko bindee nii lañ koy bindee. te wax dëgg yàlla sama médecin bi daf ma defal provision provision la ma defal. dafa ma defal provision ma ne ko mënu ma da nga taw man ne ko defal ma provision ñaar mooy provision bu quinze minutes bi ak bu bu 15 minutes bi ak bu ak beneen bu une bi temps bi. ñu bi bideel bi ñu may samp. perfusion waaw voilà perfusion moom la ma sampal ma mën a pour mën a ñëw ak sama tànk bi ceer jëlal sama tànk bi. jëlal tànk bi. gis nga tànk bi. tànk bi démb dama koo takk pour mën a bouger. mais bu doon ba ma duggee damay sàmm non lii nañ bu jàpp ne affaire mystique la. faux laa def doon wàcc ci escalier bi di wuyu téléphone ndekete escalier bi tànk bi laa teg di réeku man heureusement ba sama ndigg li damul. jaay rak na ngeen def yeneen jàmm def def faux takk ko ba mu dëgër këj mais démb bi may ñëw. di bi may ñëw. bi may ñëw bu fekkoon non non damul def na rajo def naa lépp. non non il est médecin professionnel saa suivre koy nuyu bu baax. démb moom waxoon toogal nga woo Balla Gaye ne bul dem da nga tawat. Ah. ma ne ko Cheikh mu ne ma ne ko Cheikh bis bi dafa am Cheikh bi dafa am lu ñu jaral samp ma provision rek. Ah. boo ma sampee provision. Ah. ma man a taxawee ak loolu quoi mais dem bi may ñëw mais naka ma dugg mu mel ni mus dara musuma dal kontaan faat ma li gën a neex waa Guédiawaye di leen sant di leen gërëm démb mobilisation bi ñu génnee parce que ñun loolu lañ am. comme li ma doon wax rek ñun bala géej la leen am Guédiawaye ci kaw mu respecté ñu man moom loolu moom wax naa ko waxati ko ku ku nekk bu la joxee sa wàll man de chaque jour maa ngi ci ginnaawam waaye yëfi doxam yooyu muy def. boo ko defee man xam na ma xam naa ko wax dëgg yàlla boo seetee Balla Gaye 2 ak léegi nga xam ne changé na. li ma ci gën a neex mooy dem bi ma ñëwee waa géeje waa ñu teeru man teeru bi ñu ma teeru vraiment il m'a choqué. mënoon nañu defar laa jógee mais vraiment démb il m'a dama ñëw public bi yëpp bàyyi li ñu doon def mel ni man maa moom ëppante presse bi. kon du ma mun lu santaat waa géeje géejawaay wala ni nag cër biñ ma jox. ak yëg-yëg biñ ma jox ak yëg-yëg jox sunu mbër mi yëg naa ko tey it yëg nañ ko sax laay wax parce que démb amul benn loo mën a jox waa Guédiawaye loolu sant leen. loo leen sant doyul moo leen def open press kenn du génn kon ndax ku xool ñaari open press yi. wax dëgg yàlla nga xam ni bokkul. fees ak mobilisation. ak say mbokk dar la bokkul vraiment. man na yooyu côté yooyu du ma ci dugg mais bokkul quoi bokkul. nga wan ni xam ñun ñii ñu ngi ci jàmm. seen bés daal 100 pour cent bi ñun waxuñu la 100 pour cent mi ngi ci fi ñu ngi fi ñu ngi ci 500 cent. Ah, waaw am na waaw loolu après la man dinaa dinaa la wax nga dégg dama ne ñu ngi ci cent pour cent. mais li tax man la ñu ngi ci 500 pour cent démb su may fan fànn. Mm. dañ maa dar. xam nga li ma la wax bu baax. Mm-hmm. kenn ku gis nga Bou Siteu barke alxuraan motoom la jël ma romb ko rek mu topp ma. falaa nekk bi ñu génnee dangay ngay déglu maay wax. biñ bi génnee bay dem bi ñu génnee bay dem mënuma garaan yow laay xaar boo paree maa ngi sa ginnaaw. Safara. Mbaytin. Eumeu Sène Junior. Pape Ndoye. amul benn boy ak ah, Moussa Mboup. man daal waxuma ko benn boy ah. waxuma ko kenn. dara ma ñu ne yow yow sunu papa nga doo sunu mbër sunu loolu démb daf ma soke may bàkk war a génn njambaan na ma feccal xam na ne boobu sama sëb bi mu ngi metti mun ma feccal ma fecc yi non démb faat ma bu mooy cat cat moom ma topp démb gis sama sëb bi démb bu fekkoon tey sëb bi mun naa bouger nga gis lu garaaw mais heureusement Euh, jaam pexem yàlla dogal ma mbër mi comprendre ma parce que mun mbër bi may dajeeg moom Balla Gaye nee naa ko jàppantewuma ak yow buuxantewuma ak yow dama feebar sama service day metti da avertir mais mi ngi reetaan bëgg ma dóor mais bi ma ko rombee comme ni ma ko waxee tous de bois dóor ko épaule tuuti laal laal tànk bi laal baat bi mu def kat mu def kii mu def mu def quatre terrain laa reetaan. tey bu ñu demee benn instant nekkul sax nekkatul sax affaire mais yeneen mbër kenn ku rek am fu la neex du soutenir. lu mini Siteu lu nga ne. lu dañoo jox Boy Niang favori ba mu euh, Balla Gaye favori ba mu loolu Siteu wax waaw gars am la am na ci droit. Siteu am comme ni ma faree ci Balla Gaye bien sûr man maa ngi ni démb am ku ma tiitiral daan ni Boy ma ni Boy Niang du nitu kàddu. mais dafa waroon àggali bind ko ne boo ñaaw du nitu kàddu géew. parce que damaa jiital na boo ñaaw nit ku baax la nit ku ma respecté la. non mu tiitre ko lépp moo gën kii naan kooku. ku non ñun mu def ko ku jàngul naan guy gi dañu boo ñaaw du nitu kàddu. non xaaral xaaral Fatma Fatma titration dafa garaaw. boo ñaaw du ma ko manqué de respect boo ñëw nit ku baax la yaayam nit ku baax démb wallaahi wal azim bi may génn fii di dem dama su ma demee damay sant yaay boo ñëw yàlla Balla Gaye yàlla yaay Balla Gaye wallaahi wal azim Balla Gaye waxu ko ko ma dégg Balla Gaye wax ko barke alxuraan ñoom nit la ñoo xam ni kuy bëreeg seen doom da ngay seen yaay day jël exemple ci yow man sama yaay bonne mère kenn du ko gis ci télé yi mais sama yaay boo waxoon tamit nga xam ne yaay guy gi bonne mère bonne parole mère mais nag xam nga waaw maay salaam xam nga yaay waaw dëgg la dëgg la ndeysaan fan si la yaa ngi dégg yaa léegi loolu fan waxal ak man léegi loolu dafa jaroon ñu leeral ko heureusement Balla Gaye wax ko mais Siteu bu làmb coow la boo ñaaw bu waxul Balla Gaye wax ku leen di fay Siteu bu waxul man ma wax ku ñuy déglu làmb ji dama am pleur mais xamante nañ Siteu maa moom bañ bëree ba pare avant ñuy bëri dafa metti woon mais bu ñu bëree pare gannaaw la ma def te bu ñu waree bëriwaat ni day mettiwaat sekk mi nga xam ni mooy nekk ci ginnaawam sekk ay doomu nday lañ te buñ taxawoon tamit day mel ne xaw ma sekk sekk xaw ma làmb lool la mais Siteu boo waxul ñëpp fare ci Balla Gaye du neex. du neex mais mais mais mais kan moo ko minimiser. léegi nag ñoom seen biir ñoom waa Pikine ñoom ñoo xam. li tax diw ak diw loolu du ma ci sori mais ñun suñu biir suñu encadrement man na te bu dimanche bu sooba yàlla maa ngi doon wax léegi Pape Mama Fall. dimanche suma mobilisation bopp man bi ma nar a def. man li ma nar a indi stade. lu may tawat fi noonu fii ba foofu dina ko moom mooy prévision. fii ba euh, fii ba dimanche. médecin bi dinaa ko démb prévision ma bañ a tëdd. parce ma metti rek. bu ma ne bu ma tawatul woon ba ñu ëppante presse ba. leneen la ñuy gis. mais xam naa xam naa loolu moom déggoo dimanche ay raw. dimanche man maay woo waa géej waay gi yëpp. fu fan si Balla gay nekk fan si guy gi ñëwal stade waxuma li Balla Gaye indi mais li guy gi nar a indi stade bu la rawee bu la ko nettalee du am sens barki Seydina Muhammad combat bi daf ñoo ñor. di ñaan waa Canaba Seck. Balla Gaye daf ma sas. ñoom dégg lañ ko seen bopp. guy gi wool waa Canaba guy gi wool waa Canaba te bu man dégg moom téléphone loolu la may njëkk wax. kon am na lum ma sas di waa Canaba yéen ñi may ñaanal waa Gambie waa Casamance waa Guinée Bissau Pakao Marsassoum fépp Mali fépp waay nekk di ma ñaanal. xamal ne suma doomu ndey moom combat muy Balla Gaye numéro 2 combat bu ñu ñor di ñaan yàlla yàlla defal ko jàmm yàlla musal ko ci cat ba bis ba yàlla bàyyi ko xelam doxal cër yëpp mu jàpp boo ñaar daan ko jël bu ñëpp di coow. loolu la ñuy ñaan yàlla. Ah, mais instant euh, boobu nga gis fan yi muy lëmbe hmm. ah daa mel ni booy ñaar instant bi seen kaw de. la. vidéo ci guy gi. mais loolu loolu comme loolu noonu lan lay kii ci mbër. comme le fait làmb yooyu ay détail la lii daan mbër demul làmb faat ma ndam affaire suñu borom la bu doon loolu ku jox mbër sa xaalis nga daanu ku jox sëriñ sa xaalis nga daanu doo bërewaat man affaire sunu borom laa teg mbirum daan affaire sunu borom dernière décision yàlla moo ko yor sëriñ bu ma toog nga dem mun nga ne ma da ngay daan doo man ñaanalati. mais kon ay fu ne ngay la. bataille psychologique la. bu doon loolu mbër yi li indi man bi may bëri rek rek bi galaaj wàccee damaa tiit loolu daanul mbër premièrement loolu daanul mbër bu roon loolu mbër mi du fonctionné bi del ñetti oto ñetti oto yi gàllaaj yooyu dafa bokk ci xumbu xumbu làmb daanul mbër. man xam loolu moo tax mbër mu ma daan bëreel damay jël si saafara xëppoo ko ba pare daan la léegi dañ ma ko teree du loolu. Euh, état Balla Gaye nan nga ko gisee. non macha allah damaa kontaan man damaa damaa gis fenn ma dama la parce que dóor naa ko épaule laal loos bi fekk fa trois tere laa fa daan fekk fekk naa fa quatre suuf gi suuf gi tànk mu ni nder ma ko macha allah fils kontaan naa. kon li ko kon. Euh, Balla Gaye daf ñoo nëbbu ñun ñëpp boppam. ñun ñëpp dañoo nëbbu boppam. mais démb il m'a surprise. barke Mouhamed damaa kontaan. parce que bi muy fecc vraiment man li ma gën a neex ci open de presse xam na ne ma man wéru ma mais jox na ma cër boo xam ni dana ma fii open de presse sa la. parce que woo na Sa na ko man la njëkk a woo dégg naa ko mais wuyu ma ko parce que dama doon bañ démb foofu mu jàpp ma ma jàppante feebar bi gën a yëngu mu ni ma. Euh, bu ma nee feebar nag bu jàpp gaa yi feebar mystique la feebar lu tooy moo ma jàppoon ak ah, jeex na ndax yow Thierre xam nga bi nga fi ñëw keroog ñu toog image boobu nga wane ko. xam nga loolu moom du feebaru waaw mais mais dans deux semaines incha allah ça révise salle incha allah reprendre yaa ngi dégg mu woo Sa Thiès ne ko wóol guy gi Sa Thiès xëpp sa sama loxo ñëw ci laa ñuy dégg ne ko fii man feccal sa fecc rek après far yàlla yoo feccam jeex ci laa ñëwee. ci laa ñëwee doon def sama ngoros boobu nag. affaire mais bi mu def ngoros bi sax sama sëf yi dama doon bañ mu yëngu mais. talatuma woon loolu ndax bés bi dafa faat ma incha allah bu dimanche. loolu exibilité la loolu maa la may loo xam boo xam ne kenn mësu koo daaj ji man bu ma dugg see sax dañu xam dugg si nañ. xaaruma ci barke alx ñun ñoo xewlee. mais Fatma yow boo ñaaw bu amee rëpp ci Balla Gaye ñun fu ñu jëm Guédiawaye mais liy may Balla liñ man motiver ko ñaanal ko liñ man te fu mbër nekk géejawaay dinaa la mobiliser ñu nekk ci ginnaaw bu lëndee dañuy bu lëndee danañ xam ni wallaahi wala waa géejawaay ñëw na. mais boo ñaax mu ne euh, géejawaay démarrage la mais finition bi ci la toll. boo ñaax du nitu kàddu géew dama koy waxaat du nitu kàddu géew du taxaw. Balla Gaye bi ma gis gisuma Boy Niang mais Balla Gaye ma gis Boy Niang du taxaw ak Balla Gaye barke alxuraan du taxaw ak Balla Gaye dama ni Balla Gaye ma gis Boy Niang du jàkkaarloog Balla Gaye taxaw di wéetu ku may une minute ku may une minute non Balla ne bu ko xaaru une minute kon leer na. kon leer na kon xam presque une minute une la rek. sawaay Balla mayewul une minute mais moom moo may une minute mu jox ko comme que man ah, Balla mënu xaar bu ko xaaree une minute benn mbër mooy maye une minute. Mm. wala deux minutes dan ko def muy moom nit ki da nga koy nangu ko yàlla may. bam bam ko bàyyee ba tey bam ko bàyyee ba tey gisatoo ko may une minute. mais une minute kon mënu koo defee Balla Gaye Balla. waaye sawaay booy ñaam lay dox man li ma ci xam wax naa ko. ay day ñëw fii door arrière ma sama combat noon la ko yàqee damay dóor tamit dañu moon dañuy samp jaaga ma nekk fa yaakaaru ko indi benn laa boo xam ne fii laa ko téye rek di xaar yaakaar ni moom bu ne ma càq dem fële taxaw te boobu bi ñëw indi ma dara saa ñun xam naa li ñuy wax luñ xam làmb ji kenn ku ne loo xam génneel mais nay ru rafet luñ xam maa ngi koy génnee. dafa fekk ne bakkanam la dem na ba nekk roi des arènes daan Balla Gaye sax moo ko dàqal nekk roi des arènes. waaye sa ñun xam naa li ñuy def buñ tegee bakkanam ñun luñ ci war a teg boo ñaaw bu nekkee ci néeg di nëbbut ñun ñi ñu ngi ci ñu ngi ci gas nañ suñu bopp ci biir ci tapis bi dugg ci toog lu leer laa lay wax Balla Gaye sàgganul combat bi ñu mu àndal sàgguñu combat ñun sàgguñu combat bu ma gisoon Balla Gaye démb wala avant loolu dara ci moom loo xam ne am na luy maas mhm. doo dégg mi ma wax man gàcce laay bañ mhm. doo dégg ma wax ci micro mhm. mais chaque jour dafay dalal sama xel avant waaw ah, day. mais absence su Lac de ndax gis nañ ne gaa yëpp naan Lac de Guiers absence am absence am oh. loolu puisque yéen ñëpp ay waay ngeen tuddaloon na bëtoo non loolu Balla Gaye ak Lac de Guiers dañu toog waxtaan. mënumaa toog fii ci télé bi ñenn absence Lac de Guiers maa ngi daa tukki daa voyage tukkiwul demul fenn mi ngi fii. demul fenn mi ngi fii ak boppam bu rëy mu may dégg xam naa ba mu wax ma wóor cee na ko kaay ma tontu mais ñoom ñaar dinañ toog waxtaan. parce que non non non déggul li li ma la wax man dama lay wax li nga xam ni mooy géej waaye pour doxal ko ci kanam. Balla Balla Gaye nii boo coupé léegi dafa may sama xarit la. Balla Gaye suma nit la mais ñoom ñaar li des seen diggante ñoo ko xam li koy indi mooy toog waxtaan Balla Gaye def benn sorteem wax ne Lac de sama nang muy luñ gëm nag. mais mënuñu dëppal Lac de Guiers mu naan Balla Gaye lii Balla lee ñu pare ñu soxla ko Balla war ko soxla du ko gis loolu mënul nekk teel laa ko waxee directement suma ma la nag moo tax ma am droit wax ci moom lii parce que man du ma nëbb su may dëgg parce que man bu gisee ci man dara noonu la may woo ne ma guy gi te bu soxlaa ci man dara damay woo ak lii laa soxla man Balla uma sens intérêt ci moom Lac de Guiers uma ci intérêt bis bu bu may bàyyi Lac de Guiers danaan ma allu téléphone fils dégg naa la li nga wax bul ma woowati billaahi boobu laa koy gëj a woowati lijjantiwuma ko lijjantiwuma Balla Gaye mais ku ma ci jox cër ma delloo ko. tey fii ma toog ba mu la Lac de Guiers dama la soxla xaar ma ci géej gi moo ñëw ba sama buntu kër yóbbu ma. Balla Gaye waxee noppi kon bu ñuy la laam dinaa toog fii naan la de Guiers dafa voyagé wala Lac de tànk bi day métti ñoo ma da ngay fen du ma ko def mi ngi fii mais li tee mu ñëw loolu moo Balla gay la ku ni problème amul da ngay fen xëy na jàpp na sortie bi ma waxoon jàpp na ma atteindre ñi nekk ci ginnaaw Lac de Guiers amul fulla ñu nekk ci ginnaaw ak Balla Gaye na am fula. faak topp yi bàyyiwuñu mbër mi mbër yi. nekk ci jàmm. al topp yi fekk bàyyiwuñu mbër yi duñ nekk ci jàmm. wax naa ko la de Guiers téléphone ngi may dégg ba amul na tontu ne damay fen ma ne ko booy mu ne ma ko kii yàlla moom la tëgg géejawaay ñun ñëpp moo ñuy tooñ. ñu ñëpp yow dalay tooñ man damay tooñ nitu ay la day tooñ. te da lay ruux ci suuf man bu ma ruuxee suuf ma jug ci kaw di wax léegi booy nañ toog xool nu ñuy régler problème bi bu ko defee bu nekkee ci jàmm moom da lay mere te bu la mere waa gi yooyu gépp lay mere booy bëri super du la topp. wax naa ko muy dégg. daf benn sorte sama sama diggante guy geeg la dëggee yoonu kenn nekk. léegi neex wax leen. voilà moom xam na li ma ko ruux ci suuf ba mu wax loolu. lim daj lépp billaay xam na biñ toogee keroog ci cantam gi xaw ma la toog la ne leen sama diggante guy gi. Hmm. waxuma la coow sax lu ma guy gi defati ma ko bu ne lu ma guy gi defati dama ne yow looy defati guy gi arrêté ko ndax guy gi defu la dara dafa dara ge defu la dara yaa tooñ mais loolu dafa neex génn dëgg gi mais booba tey da gis Balla Gaye ak guy gi wala Lac de Guiers ñu ngi ci jàmm mais al topp yi nañ ñu bàyyi comme sama diggante ak rakk yi gis nga ko buus si taag safara ak njam niñ meloon al topp yi la mais biñ ci génnee loo gis booy léegi ñoo may woo ñoo may def lépp di ma yóbbu entraînement fu ma dem duñ ma sax may jàmm yàlla topp yi nañu bàyyi suñu suñu géejaay gi ni mu commencé wallaahi koko lii di jaan mos na ko koko nar yàq du la jik koko nar yàq du la jik mais démb mu nga gisoon ma taxaw fii la de taxoon fii mais loolu Boy Niang psychologique boobu dafa xëcc Boy naa te noonu lay demee incha allah dimanche la de fu mu nekk dinaa ko fekk stade dañuy dem demut caméra lay laay woo yow yow xamoo ma xanaa yow. Uh-huh. Balla lan la lan la mën a wane ci combat bi. non loolu moom de wax naa dama ci waxaat. ñun ñëpp mooñ am xam ñun ñëpp mooñ ëpp xam-xam bëre. Uh. waaye sa yow man sa man naa fi nekk na eh, doo nagal naa fi nekk ñun ñëpp mooñ am xam-xam bëre. Uh. sa waay man sa awma benn xolu ki ñaan ci ci mbër. ñun ñëpp mooñ ëpp xam-xamu bëre mi ngi mel ne tey ji ma dem ak Lac de Guiers ci physique. maanaam ko dama lay jàngal physique. du ma ko jàngal physique ci physique la dëkk. Uh. xëy na physique bi dul physique laa dul bëgg rek. taay woo naa ko ne ko na nga rey doomu jàmbur ci géej gi booy boo xam ne day yaram mi day tàng nga dugal ci géej bu crampon bi billahi nga bàyyi ba dañ lay tëj de dañ lay tëj na koy naan o o aaye o